Diédhiou coordinateur du mouvement 19-20 19-20 c'est 1960 l'heure bi nga xam ne moom lañ ñu jox suñu indépendance ba 2000 2000 aujourd'hui ñu ngi ci 2019 pour ñu def ko en bref moo tax ñu ne ko le mouvement 19-20 mouvement bi nag dafa yaatu et mouvement bi jusqu'à l'infini du tëj buntoom membre fondateur yi dafa nekk ay sénégalais de pur sang ay sénégalais digne ndax dañ ne un peuple un but une fois suñu slogan en tant que sénégalais mouvement bi mouvement la boo xam ne lépp loo xam ne doxaluñu ko lu jëm ci askan bi ñun dañuy jóg pour xeex ci lépp loo xam ne luy taaral askan bi la dañ ci ànd mouvement bi excluwul dara nag pour ñu bañ a comprendre pour ñu ko mën a xam excluwul dara mouvement bi dafa yaatu dafay soutenir ñëpp surtout li nga xam ne mooy suñu ressource su dëkk ndax dafa am loo xam ne nit ku ne du lu la dëkk lu la sa dëkk di defal mais li nga defal sa dëkk moo ëpp solo moo tax bañ koy créer ay retraité ñoo ci nekk ay kilifa diine ñoo ci nekk ay ndaw yoo ci nekk ay jigéen a ci nekk ak lépp loo xalaat luy doxal réew mu ci biir mouvement bi ñu fas yéene ànd xool naka lañuy def bay si suñu waar ba nga xam ne bu ñu demee ba fu suñu app jot ndax mouvement bi du ndond du famille du dara mouvement la loo xam ne waxtu bu ne mën nañu soppi sax ka nekk ca kaw teg fa luy dox l'essentiel la ngay woote na méngoog ak la askan bi bëgg ñun loolu la ñuy dox ndax ànd nag ñu ne mënuñoo sëgg nag parce que boo gisee ñuy génn heure bii sax di wax ci li nga xam ne lu soxal Sénégal la mbete bu dee politique la bëgg nañu parce que politique bu dee day defar réew dañuy jël dañuy taxaw wax ci bu fekkee li nga xam ne luy doxal diine la dañ ciy taxaw bu fekkee li nga xam ne dafay delloo suñu moomeel si suñu biir dañuy jël loolu tax mouvement yi yaatal nañ ko ubbil ko ñëpp muy képp koo xam ne Sénégal ñor na la na nga ñëw mouvement bi amul sant amul waaso amul diine amul lépp lépp loo xalaat lu koy doxal rek mu ngi ci biir mouvement bi nag yaatu na mu ngi dox ci fan yi néew ñu ngi préparer même conférence de presse boo xam ne dañ koy def parce que waxtu yi li ci des bariwul ndax Sénégal dañ koy dañ koy waaj a dénk ay nit benn nit sax ci ay nit ci juróomi nit yoo xam ne ñoom lañ tànd fas yéene ko jël looloo tax mouvement bi génnaat si si turu coordinateur bi mu génn wax ci turu mouvement bi pour mun a xamal ni le mouvement 19-20 c'est l'indépendance boo xoolee sax dañu gën a appliqué ci affaire colonisation mooy l'indépendance de 1960 et encore une fois dañu bëgg tamit ñu wax ak suñu askan xamal leen ni indépendance du diplôme booy jël di ko teg sa chambre indépendance c'est quatre-vingt-dix-neuf yoo xam ne pratique théorie bi sax un pour cent lañ ko mën a tuddee mais nag en Afrique comme lu ñuy wax ñun dañuy jox suñu indépendance partielle moo tax ñu préférons ñu en tant que jeune ñuy dox ci li nga xam ne daf ñuy doxal ci lu baax ñu fexe naka la ñuy def ba mun a récupérer li nga xam ne mooy suñu moomeel mooy suñu moomeel teel ko suñu loxo mën cee ànd maa ngi leen di nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant adhéré leen ci mouvement 19 20 mouvement 19 20 am na partout dans le Sénégal dans les 14 régions am na ñu ay représentant kon ñëw leen ñu ànd ñu liggéey xool naka la ñuy def pour ëllëg ñu bokk ci ñi nga xam ne suñuy sët bu ñu fekkee si suñu sëkk muy bàmmeel ñu ne sama maam bokkoon na ci ñi nga xam ne tey. teraanga bi moom ñoo ko liggéeyal bañ a wuteeg ñi nga xam ne ëllëg fu ñu leen tuddee rek ñu yëkkati lu bon teg ko ci ñoom jërë ngeen jëf gaay yi ngeen jëf